des populations, quand ce numéro vert-là sera mis en place incessamment, qu'ils se mettent à dénoncer les filières de migration et à dénoncer tous ceux qui sont en train de convoyer des jeunes vers les vagues de la mort. À défaut, il sera extrêmement difficile de combattre ce phénomène. Il faut que les jeunes et les populations comprennent que la situation qui a fait prendre la, la mer à ces jeunes pendant des années ne peut être résolue du jour au lendemain. Il faut du temps pour que les solutions qui sont mises en place opèrent et que les conséquences positives se fassent ressentir. Entre-temps, il nous faut prendre notre destin en main en tant que Sénégalais ici au Sénégal et ne pas fuir les difficultés et les défis qui s'imposent au peuple sénégalais, jeunes, vieux, hommes et femmes qui doivent relever ces défis-là. Voilà ce que je voulais dire. en présentant à nouveau toute ma compassion et la solidarité du gouvernement à l'ensemble du peuple sénégalais, mais aussi à l'ensemble des familles éplorées dans cette tragédie. maa ngi taxaw fii ci Mbour ci plage bi ak tiis ak naqar gu mag gu amul fu ñu ko mën a xayma li xew fii musiba la te musiba mënu ko weesu. ndax bu ñu waxee ne am na gaal gu am lu mat juróom-ñett fukki nit ñu ñu génnee ci ñeent kese ñoo xamante ne ñu ngi dund boobu ba tey ñu ropp ci lu mat fanweer ak juróom-ñaar ñeneen gisuñu ko jéeye ci réew musiba mënul weesu loolu ñii def lii nag di jël ndaw ñi ci seen naqar ak seen ñàkk liggéey gi ñu nekkee ñenn ñi sax am fi liggéey waaye ñu di leen lool ne feneen moo gën ba tax ñuy jël alal gu ñu ciy dàq rek tax ñu jël ndaw ñooñu di leen yóbbu ci na di leen di leen yóbbu ci géej gi pour yóbbu leen Espagne wala feneen ñooñu gouvernement bi dina leen dina ko jëflanteeg ñoom ba mu mat sëkk. te dinañ taral daan yi te dinañ leen rëbb ba fépp fu ñu mënte nag ñu fekk leen fa ndax lii mënta bi kon li xew métti na métti na ci njaboot gi ñàkk seeni njaboot waaye mett seeni doom waaye métti na tamit ci askanu Sénégal yépp ndax lii di xew ndaw ñi di mbabb ñoom ñëpp di dem bitim réew réew yooyu ñu dem il faut ñu xam ne que ay malaaka tabaxuñ ko ay jine tabaxuñ ko ay doomu aadama yi nekkoon ci jafe-jafe gëm ne seen réew dafa waroon soppeeku ñu toog di ko liggéey rek ko liggéey bi mu mel noonu ba ñoom ñu bëgg faa dem ci condition yi ñu fa bëgg a demee. bi yàggul dara boole na ar gendarmerie ak police armée sax boole nañ ko ci lu ëpp weer ñu ngi doon daqante di. patrouiller ci plage yi ba tere nañu lu mat juróom benn téeméer ak juróom-ñeent fukk ñoo xamante ne dañu doon waaj dem ñu téye leen kon gannaaw solution yooyu ngi ñuy ut pour tere nit ñuy dem ñu ngi tamit uti pexe pour jox ndaw ñi liggéey waaye dëgg gi tamit mooy du ñuy dem ñëpp amul liggéey am na ñoo xamante ne am na ci luñ jàpp waaye xëy na dañoo bëgg lu gën a bari ba tax ñuy jël risque yi ñu bëggoon leen wax ne àdduna dara xëyul sotti te njaboot yi nga xamante ne ñooy teg pression seeni doom nañu xam ne que pression sa njaboot lu baax la ci waajur bu koy teg si njabootam waaye na doon pression positive maanaam di ko ñaax mu gën a góorlu mu gën a am jom waaye jom ju ko toog loo fii muy liggéey li ko yàlla wërsëgale mu téye ci loolu pas teg ko pression ba moom dootul xejjati Sénégal ba dem wala dee wala des fii gën a nekk ñaari alternative yi mu am loolu mënta doon pexe kon na sénégalais yépp xam ne lii xew fii solution yu gouvernement bi ñëw doore egsi di mettre en place mënul xëy rek ñëpp amandoo liggéey ci ndànk-ndànk la ñuy saafara problème yi ñu fi fekk ba ku ne xam ne Sénégal ñu ngi koy liggéey te ku ne jàpp xam war a jàpp na tamit sa loxo dañ ko ci war a dugal kon dina am idiir ndax lépp xëyul sotti te ñëpp ñi nga xamante ne ñu ngi gis ay nit ñuy waajal a dem buñ ko yeggee nañu xam ne seen responsabilité la parce que dafa mel ne rek nga gis nit muy dem di xaru ji doo ko seetaan dangay def lépp pour mu bañ a xaru wala pour mu bañ sotti nañ ko jàppaleen ko balaa muy dee ngay dégg. jàppaleen ko balaa muy dee googu nag jàppaleen ko balaa muy jël géej ci dee mën ko ko fekk ci la bokk moo tax fan yii di ñëw ci lu gën a gaaw sax gouvernement bi dina teg numéro vert. maanaam fenn foo xamante ne ku fa nekk mën na faa woote te bu ko jaree sax dinañ ci teg ay neexal pour ñi nga xamante ne ñooy yoole ñi bëgg a dem dinañ sowee bakkan waaye dinañ am tamit ni ñu leen neexalee ndax ñu mën a xam ne lii ñu nekkee di ko xeex gouvernement bi kese doyu ci ndax gouvernement bi mënul nekk ci plage bu ne waaye ku ne ci plage yor fa sa téléphone gis ay nit ñu dem xamal ne jéego toll nii war na ci mën a am kon sa responsabilité en que jullit mooy ku gëm nga war a mën a tere nit ñi jël risque bu toll nii. lu xew nii ñu ne 80 personnes ñoo ci nekkoon te 4 rek ñoo ci respect rescapé kon daanaka lu mat juróom juróom-ñaar fukk ak lu teg ñàkk na fi seen bakkan te lii bu muy xew ba tey 2007 ba tey ba 2024 bii ñu nekk nii léegi mu ëpp ñaar fukki at ñi ci ñàkk seen bakkan bëri na lool te ay ndaw la ñu ñoom ñoo war a tabax réew mi kon responsabilité collective bi ak solidarité bi entre ci biir sénégalais yi na ko ñëpp na ku ne jàpp na responsabilité boobu nu mu galloo ci loosu gouvernement bi noonu la galloo ci sa loos te nga joué sa partition loolu mooy tax en attendant que solution yi ñuy mettre en œuvre maanaam pexe yu ñuy nas wane résultat yi ñuy xaar ku ci ne nekk un sentinelle par rapport ak migration yii di xew kon lii moo nekkoon li nga xamante ne bëgg naa ko fi euh, jukki ci ay kaddu te delluwaat masawu njaboot gi yëpp ñu ñàkk seen doom masaw askanu Sénégal waaye di wax ndaw ñi nañu gën a takk seen ndigg boole koog muñ te ñu booloo liggéey réew mii ñu xam ne bu yàggul bu yàgg balaa muy yàgg incha allah dañu commencé gis résultat yi nga xamante ne ñoom lañ diglanteeg ñoom waaye réew mi kenn du jóge bitim réew di ñu ko tabaxal ni waa bitim réew toogee ba tabaxal tabax seen réew ba mu mel ni suñu ni tax suñu doom yi di jël risque dee pour dem fa noonu la ñu war a toogee fii gëm ne réew mi fii lay changé bu amee lu ci doxul ñun ñëpp ko war a jubbanti ndax ku ne am nga fi responsabilité te fii la ñu yàlla tanal salaamaaleykum wa rahmatullah alors justement gis ngeen kàddu yi nga xamante ne nekk excellence le président de la république Bassirou Diomaye Diakhar Faye na ko fii jëm ci li nga xamante moom mooy mbëkk ngir gën ko xam matuwaay yooyu bokk na nga xam ne képp koo xamante ne yëg nga wala gis nga gaal guy dem nga mën ci numéro vert boobule pour ñu mën a jël ay mesures préventives leneen itam bokk na si mooy fexe teg leen ci li nga xamante ne euh, moom mooy fexe gën a euh, dëgëral waaye tamit wane yoon wam te dinañ si jaar ngir jox ndaw ñi xëy bu ko defee euh, li ni mel mu mën fi géej wala dootu fi amati woon itam ndaw yi ñu fexe